Bienvenue, c'est Imson. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci. asalaamaaleykum ñëwati naa su ma dikkatee rek information yi Mo ma ñëwati ci ñan sunu gaynde faux lion yi ki leen yor tamit gën nek nekk faux Aliou Cissé la mu dañ ko waxoon nañ ko jox réew mi. maanaam équipe nationale réew mi mu indil ñu coupe boobu ba léegi ñu ñu soxla coupe mënuñoo fexe bi indi coupe mu xaacu jaayu réeju jooy na jox leen ma équipe bi may ñu leen coupe dem leen Russie jël ndaar de dem fan eh, eh, eh, fu nekk dem nañ fa jël ndaare Aliou Cissé la nga waxoon defal ah wooy na la fi woy wu rëy Cissé Cissé Cissé daal njëriñ yow Aliou Cissé sa yaram dawul ngir yàlla na xanaa sa yaram dina daw ah bii faañu فني خار مويسا بكو ناري تنار كو نخم نير فا ساي ساي اما تاي تاي بو بو دوغول كو تي تي تي تي جوري ديس بي مو كو جوغا دي ساجا ماني داك داك داكوي ديسل دغ باخ مرا لما سي بغ نك موي ايكي ناسيونال اندي لين كوب ولا ماتار بامي دم دندي كوب ولا ماجي سال ديبل ريومي انفورماسيون بانغو كوبوتينا Bienvenue, c'est Imson. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci.